làmb lamb juma gëna léré ni amul ci aduna li xalé da ngeen xamné ne Balla Gaye dana am dam mhm. jërë ngeen jëf mbokk internet Cinevox Plus ñu ngi leen di jaajëfal bu baaxa baaxa baax top gi ngeen ñu top way rawateen ànd bi ngeen and ak ñun jëm ji moy jëm ji nga xamanteni mo fu xon combat Balla Gaye Tapha bi dina doy war tey nag dafa fas yéene defaat yeneen révélation ndax nag koy ko dafa doon ko xamante ni ku sénégalais di bàyyi xel la waaye tamit ku sénégalais di diglu la ci xam-xam waaye bu waxee ñëpp xam ne wax na moom nag ñu ngi koy wax Serigne naa Ndiaye borom seetu loxo gi mooy seet gi ngeen xamante ni moom ngeen di gis ci TikTok bi muy def buzz jëmm ji moo koy def dama koy bàyyi mu nuyoog mbokku internet yi Serigne naa maa ngi lay nuyu. asalaamaaleykum wa rahmatullah ñoo ngi lay siyaare bu baax si moomoo la jox wàccuwaay bu baax a baax. di siyaare mboolem ñi nga xam ne ñoomay bàyyi xel saa su ne ak jamono ji ne di leen dokkeel bu baax di leen ñaanal tawféex ak jàmm di siyaar bu baax Cheikh taxal Bachir di ko ñaanal suñu borom guddal fanam te wéral ko ak mbooleem kilifa yi nga xam ne ci biir réew mi ak ñi nekk bitim réew salaamaaleykum wa rahmatullah sëriñ Cheikhouna Ndiaye nga def fi benn vidéo mu def buzz mooy vidéo bi nga xamante ne da ngoon waxoon ci Balla Gaye combat bi Tapha na ay yoo xamante ne bu defee moom bu soobee suñu borom dina jël victoire bi yaa nga ca loolu ba léegi wala carte gi changé na. waa maa ngi ca loolu ba léegi la ma waxoon ne làmb ji nga gis nii. Mhm. muy Balla Gaye ak Tapha mhm. la ma ca waxoon maa ci ba léegi. Mhm. damaa wax ne Balla Gaye ñu baree ba dañoo ñàkk confiance ci moom. te wallaahi naa di war a bul kax ba confiance bi ci moom la gën a ndam li ci moom la gën a jubu jamono ji may wax yow. ci Balla Gaye ndax li tax ma ne ndam li ci gën moom la gën a jubu. dama ko xool ci si ñaari bidiw xool ko ci mystique. ndax mystique bi boo xoolee dangay gis ne. Mhm. Balla Gaye gën a taxaw fi mu toll nii mu gën a jekku. Mhm. waaye soo xoolee tamit ci beneen fànn. dangay ngay gis ne maanaam ci wàllum doole ni ko nit ñi nit ñi ñu jàppee ne Tapha Tine mooy mooy mooy mooy daan. wala ni mhm. Tapha mooy man. ni ko nit ñi jàppee demewul noonu. demewul noonu Tapha Tine ni yaram bi toll bu mu jaaxal nit ñi. da xam ne maanaam nit mën naa yor mystique bu ne. maanaam nit mën naa yor doole ju ne ñëw mystique daaneel ko. ngeen xam ne làmb gis nii. Hmm. maa ngi wàcc màggu yàlla làmb ji ma gën a leere nii amul ci àdduna hmm? làmb ji li ma ci gën a leer mooy maanaam mën naa la wax sax ki nga xam ne mooy daan te loolu insha allah wax naa la ne la suñ demee ba jub làmb ji kenn du wax résultat ci jamono ji da ngay bàyyi ba mu jub ba nga xam ne ñaari fan a ca des hmm. wax la ki nga xam ne mooy daan ci jamono ji yaa nga wax ma ki nga xamante ne moom mooy daan ma wax la ki nga xam ne insha allahu rabbi ci kattan yàlla mooy daan ci diggante Tapha Tine ak Balla Gaye boo gisee du ma dugg ci mbir yooyu di ci wax lu baree baree bëri damaa gis ñu baree bare bëri dañuy dañ ciy wax dafa doonul lu leer Mhm. te nit ñi dañuy dañu dañuy dem ba dañuy sikkal sax ñi nga xam dañuy wax ci lamb motax mhm. nak man suma wax ci lamb day doon lo xam lu leer nañ la mhm. waye lamb ji ma gis ni Balla gay mo gëna jekku ci jamono ji ma wax guddi ma wax yow wallahi alazim victoire bi mi ngi ci Balla Gaye buñ gëne jégué ma wax ma wax la tamit lan mo waral ndam li mëna am inshallah rabbi ci katnu yalla nga baxam ndam li mëna am waaw serigne bi nga doon ko xamanteni gis kat nga ne nga nit bu ma talale lu xam mu wax ko ba mu mujj gi sax day yakane man ak mom dañu dëkk kii di Doro Gueye ñu wat ko garde à vie lan nga xam ci moom ak loo koy wax. waa ñu war ko garder nuñ ko def à vie. garde à vie. Mhm. garde à vie. Mhm. waaw kooku moom li ma ci xam ay mbiram. Mhm. bu fekkee ci côté bi ma gisee gis-gis yi ma gis. damay gis ne nit la koo xam ne. yàlla mën naa def lii ñu ñu koy def nii mën naa mën naa am de. mën naa am de. waaye gisuma ci tamit maanaam ñàkk ndam ndax faaw moom danaa kulli xale da ngeen xam ne Balla gi dana am ndam. sarax nga xam ne moo moo waral maanaam Balla Gaye mën am ndam. sarax mi sama loxo. mi ngi solo yalla bis buñ ma woowee ci nu sa borom dana leen wax sarax bi te aajowul ñu ma ci wax dara manam nañ ma wo téléphone rek mu wax leen sarax yow daal na la balagay wo téléphone nga wax ko sarax yi nga xamanteni moy daan tafatin manam pour moom sax pour moom man na ma baña a waye waaye ku koo jege na ma rek ku ko jege na la wo bi nga xam moy sarax bi nga xam moy pour ma am dam mhm. tafatin tamit moo wooyee insha allah mën naa ko sarax bi tax ma mën am dam ha ko ba ci njëkk wo rek inshallah rabbi ma wax la sax même tafatin tamit bu lo wooyee man nga ko wax sarax bi tax mi am dam man na doon man na la wax sarax bi nga tax nga mën am dam ci guddii may wax yow di guddi gi nga xam waaw sëriñ bi yow nag nga doon jëmm ju doy faral di wax na nit kase ma wax li nekk ci moom te duma ko waraaj nii nga tudd ak naa nga tudd sëriñ boobu ci seetu loxo gi seet gi moom jamono ji yàlla dogal na ne seetu loxo moom mhm. muy xiraatul taf fi mhm. ci mi ko mën ku mën doon ci man mii la ko la ku mën doon nag laa wax ku doon ci ñoo sa voix rek dégg manam li ngay wax rek ñu xol loolu diko wax loolu mo mhm. ci upp waaye mbirum seetu loxo moom képp ku ma yàgg topp mhm. ku ma yàgg topp lax de mhm. xam nga ne ci man mii la génnee ak ku mën a doon nag seetu loxo damay wax ne maanaam amul mbindeef muy toog ci àdduna foto loxoom bii yónnee ma ko turam ak tur waajur wu jigéen te du la wax loo xam ne maanaam ci sëkk àdduna musu ko musu ko dégg Hmm? li ma lay wax. Hmm? ba nga juddoo ci sa nday bi sa baay mosoo toog seetkat mu wax la ko barke alxuraan karim. ci seetu loxo gi. waaw te sëñ bi moom loxoom rek la lay foto yónnee la ko. loxoom ma ko sa tur ak sa tur waajuru jigéen ma waxal la ci doon tur ak boo gisee ma di ko faral di sàkku. day tax ma man laa génneel yow ci boppam maanaam yan sarax nga war di saraxe. ak lan mooy sa bidiw loolu pour loolu la. Hmm. bu fekkee yeneen yi nag moom dafay waral maanaam ma mën laa génnal sa dund lépp lépp lépp moo tax. moo tax loxo tise bi yëpp ba ma juddoo ba fi ma toll nii ba maanaam noo war a faatoo sax mën naa la ko wax. waaw. ci loxo war a faatoo. mais sëriñ bi li ma yéem xanaa loxo bi dafa am ay différence wala ñëpp dañoo bokkul yor même tere loxo yi. waaw loolu dama koy faral di wax lu bare ba dama naan la maanaam tere loxo yi dañoo wuute. gis nga bare dañoo wuute ci ay tere loxo. Mhm. am na ñoo xam ne dañoo yor ñaari tere ci seen loxo. Mhm. ñaari tere kese lañ yor maanaam benn bii bokk ci maanaam diggante bi amul tere loxo. bokku ci am na ñoo xam ne dañoo yor ñetti tere yoo xam ne maanaam ñett yëpp dañoo xàjjalikoo Mm-hmm. am na ñoo xam ne yor trois terrain deux yi taqaloo benn bi xaajul na ñoo xam la. Mm-hmm. am na ci ñoo xam ne nit yu wërsëg la na ñoo xam ne dañuy doon nit ñoo xam ne maanaam fii ba bu doon mm-hmm. ñoo am na nit ñoo bu ñu tëddoon di nelaw sax dañu am. bu ñu tëddoon di nelaw sax dañu am. waaw. yee sa yii saa yi ma gis nit. waaw ya. mu fatoo loxoom yónnee ma ko ne tukki laa bëgg ma ne ko yow doo tukki doo génn réew mi ne ko doo génn réew mi ma ne ko doo génn réew mi xam lu tax ma di ko wax loolu waaw damay xam ne maanaam li waral maanaam munta a génn réew mi mhm. ci terrain loxoom yi la ci terrain loxo am loo xam ne secret boo xam ne daf cee feeñ moo tax ñaare ma xool nit ki ne ko yow doo yow doo génn réew mi wala ma xool nit ki ne ko yow day wax dëgg yàlla gis naa ne am am moom doo am doo am yeesaa yi nag dama ko bàyyi ndax loolu euh, parfois ma bëgg ko wax nit euh, du ma ko du ma ko mën wax nit ndax nit koo xam ne doo am rek ñaare dafay déclaration ci àdduna dëgg la waaye nag ku nekk koo gis am na sarax boo xam ne maanaam bu ko defee. Mhm. ay bidiwam ubbiku moom. Hmm? loxo boo gis. Hmm. am na saraxam boo xam ne bu ko defee. Hmm. bidiwam yëpp ubbiku maanaam lépp lu muy lijjanti. ak lu mën a doon mu sotti. mu sotti waaw. dafa am ñoo xam ne sarax dong mooy ubbi seen mbir. am na ñoo xam ne waaw am na ñoo xam ne sarax mooy ubbi seen mbir. sarax képp képp képp waaw sarax képp. aji woo di la ñaanal aji wu dara sarax nañ saraxe rek seen buntu ubbeeku am na ñoo xam ne nag maanaam faw seen mbir pour mu ubbi ko ay ñaan moo waral mu mën a ubbi ay ñaan ay ñaan moo waral mu mën a ubbi ko. Mhm. moo tax damay wax ne tere loxo yi dañoo wuute te bokkunu te xibaar dafa bari ci tere loxo yi lool lool lool lool. Mhm. moo tax tere loxo bu ma ci téye. Mhm. danaa la wax maanaam sa dund lépp danaa la wax li li tax nga war a mën a am wërsëg. li tax sa wërsëg mën a yokk danaa la ko wax. du ma bàyyi dara lépp lu nekk ci yow lépp loo xam ne bu ma la ko waxee. say mbir avancé incha allah danaa la ko génneel wax la ko wax ju leer naññ ci kàttanu Mhm. ak ku mën a doon ci àddina ak ku mën doon ci waaw bu mhm. fekkee ne maanaam ci tere loxo yi nag bu fekkee ci wane maanaam tere loxo bu ne la muy taxawee loola moom dama ci indi ay ay quelques tere loxo ay quelques tere loxo waaw bu fekkee ki nga xam ne dafa am emm bi ki nga xam ne emm bi la am ci tere loxoom bi waaw kooku dafay gis ne maanaam li ëpp ci ak dundam mhm. maanaam day nit koo xam ne nit ku dal lay doon waaye ak taayal doo koy faral di dugg lu baree baree bari lu muy bëgg a def rek da ciy taayal ñaare day doon koo xam ne nag ku barim xel la waaye li ëpp ci am xelam moom du ko utiliser woo du ko ku gaaw a mer lay doon nag. koo xam ne maanaam loo ko def mën naa mer ci sens. Hmm. waaye da doon koo xam ne ku bari yu noonu la noonam yi noonu yu góor lay ëpp. ci ay noonu yu góor. Hmm. bu fekkee ne maanaam ci bañ a guddal ndax man noonu ma ko toppee mën naa ko toppee eh, a hmm. noonu waaye fekkee ki nga xam dafa am ñett terrain yoo xam ne ñett dañoo xaajaloo kooku na tukki moom la gën a mën a yomb kooku moom tukki moom ala kulli halin li fekk maanaam mi ngi dund ak tukki ndax bu xamee saraxam dana waral maanaam ak tukkeem gën a gaaw bari na ñoo xam ne maanaam bu ñu xamoon seen sarax rek seen pour bu ñu lijjanti yoonum tukki mm-hmm. mën naa gaaw lool mm-hmm. waaye am na ci ñoo xam ne ñàkk a xam seen tere seen i seen i sarax mm-hmm. moo waral seen i yoon yeex lool ci jamono yi ma wax yow bu fekkee ki xam ne ay terrain yoo xam ne dafa xaajal ko maanaam ñett terrain yoo xam ne dafa xaajal ko waaw kooku dana doon ko xam ne ab doon xam ne maanaam teraanga mën na ko defal jigéen maanaam bu takkoon jabar maanaam lu ne mën na ko defal ci àdduna lu ne mm-hmm. mën na ko defal da doon koo xam ne nag maanaam li li li li doon ay problème am mooy mm-hmm. mooy maanaam munta munta mu day doon koo xam ne bu fekkee wàllum jigéen ñi bu fekkee góor la mm-hmm. maanaam du day doon ko fiir la lay doon koo xam ne boo da ngay gis na mbiram yëpp day fiir day waaye day doon koo xam ne maanaam lépp lu muy lijjanti wala lépp lu muy dugg ak lu mën a doon su ko nit ñi dee bàyyi xel rek dafa yàqu dafa ay mbiram pour bu gaaw yàqu dafa yomb hmm. waaye lépp lu muy def nag bu ko dee nëbb moo gën ci moom a a damay wax ne moom nitu wërsëg moom kooku insha allah lépp lu mu bëgg bu ci bu ci garee bakkanam dana ko am ak lu mën a doon waaye nag ay mbiram moom li ñuy bañ mooy taayal bu taayal du am dara bu taayaleem du am dara ci ak dundam moom waaye nag dañu ko xam ne wërsëg mën na ko fekk si ci nu ne mhm. wërsëg mën naa ñëw ci moom nu ne waaye dañu ko xam ne nag maanaam ci ak ci ak bu doonee mag mhm. bu fekkee fënkul maanaam wàllum cat

dafa ci xam dafa am ñetti terrain yoo xam ne benn bi dafay dafay génn am na boo xam ne maanaam dafay génn ci suuf maanaam dafay taqaliwaat ci ci mhm. diggante mhm. a leeral dañ koy génn ci ko mhm. waaye comme noonu ma ko waxee yooyu yëpp dafa bari dafa bari ay ay ay yu muy ay njariñ yoo xam ne daf cee daf cee feeñ léegi nag loolu ki nga xam ne koo bëgg nag bëgg seet gu leer nañ nee naa fotal loxo bi yónni ma ko sa ak sa waajur wu jigéen billaahi warax bul kax ba ma wax loo xam ne ci sa dund mosoo ko dégg ci loolu rek nga soxla. waaw loolu rek laa soxla. maanaam leneen lu may soxla ci àdduna du dul loolu. tey tamit doo ko seetal par naan ko noo ku xees kee ku ñuul kee. li ma la waxoon nee naa la man du ma wax ku weex du la wax ku weex du ma la wax ku xees du ma la wax ku ñuul. waaw du ma la wax ku gàtt du ma la wax ak ndaama du la wax dara man li ma lay wax dafa day doon loo xam ne lu leer naññ la. Mhm. maanaam li ma lay wax. day doon mhm. loo xam ne ma la koy wax dama la koy tuddal. nga mhm. xam ne lii ma a wér a wér la. lim sol. loolu nag loolu nag paaloxo la paa maanaam paa rek. paa loxo lim sol. waaw maanaam ma xam turam ak tur waajur wu jigéen. waaw pointiru dàllam sax mën naa ko xam. ah. barke alxuraanu karim. pointiru dàllam te loolu seet seet gu leer naññ la. seet gu leer naññ. seet gu leer naññ la. seet mhm. moom damay wax ne maanaam amul mbindeef mu ma ci raw amul. ci seet. waaw guddi yi ma toll moom maan sama liggéey lépp seet la. te liggéey yëpp seet la wala ansi ma bu fekkoon ne maanaam lu ñu témoin ci wàllum seet hmm. mën naa laa ubbi sama téléphone bi génne la loo xam ne ci ay message wàllum wàllum sant ka gërëm hmm. kenn xamul maanaam li ma ci yor ci wàllum message a dem hmm. ku gàtt ak ku weex ñu wax sarax ñu leen wax dara baaxu ci ñoom waaye nag jox sarax sarax mooy solution ci ñoom ba tey seen mbir seen mbir ubbiku masalla waaw acca jërëjëf sëriñ bi yow ci seet kenn dootu la présenté ndax tiktok bi moom ku dugg bind sëriñ seexu naa borom seetu loxo gi Serigne Cheikhouna Ndiaye di nga ko daal gis mom moy ki nga xamanteni mom moy def setu loxo gi ci TikTok bi jëm jaangi ni waye Serigne bi ci walu nop lañu bëgg ñu waxtane ko parce que nop dafay loo xamante ni sénégalais yépp ñi ci ëpp ci maray dañu ko yombal nga dégg nga nop ben benn fan ak ñi naan nopp 24 heures yow ngay jambar ci walu nop loolu nop serigne bi waaw mbirum noom nag dafa yaatu lol nit ñi diko wax ku nekk naan mako man ku nekk naan 24 heures ki nekk naan 12 heures temps yoyep amna mhm. yoyep lu am la lu am la waaye nag damaa gis fan yére am ko wax ne mbirum noobu 24 heures amul. ah ma bëgg koo tontu. Mhm. noobu 24 heures. Mhm. lu am la. lu am la kon kooku nu mën a gëmee nit mën naa nekk ci kaw ci làmb ji di war a bëre. Mhm. ñu fas ko diir bi muy bàkkoo bi muy bi war a bàkkoo war a bëre. ñu fas ko ci te ay këram. Hmm, waaw noob lu am la. am na ci noob gu may liggéey goo xam ne fas laa koy liggéey bu la neexee da ñëw toog ma de ma liggéeyal la ko. nga maa ngi wàcc yàlla douze heures de temps lay am fas noob ah? mu jàpp ci sansa douze heures de temps nopp douze heures de temps ci mën nga koy déggee doo ko diggaat ci beneen sëriñ. nopp douze heures de temps. nopp douze de temps ci mën nga koy déggee loolu nag day jar da jaral nag maam nga ñëw ba ci man ndax ku ku ma koy noobal moom. Mhm. ku ma koy noobal da nga ñëw toog sama sama sama wet. ku ko mënul nag jurul ngay ñëw jurul ma lay noobal. ku ko mënul. waaw ku mënta ñëw ba ci man. waaw jurul ma lay noobal moom nopp googu moom. noobu douze heures de temps ku ko mu ku ko mu am na noobu. maanaam ku ko deful ku ne day déplacé waaw ku ma koy defal nag da ngay ñëw toog ba pare. waaw defal ko nga am résultat ba noppi maanaam mu woole moom moom moom ki ngay ndaw noob. moo hmm. xam ndaw soxna si nag moo xam ku ku góor ki la. waaw mu woole téléphone ba pare. waaw bu la wooyee téléphone ba pare. Hmm. wallaahi la azim warax bul kaxbati bu boobaa moom mën ngaa dem bu fekkee wóobu la téléphone nag bu boobaa nag moom moom bu la bu la neexee nga jël sa xaalis nga dem. li ma defal day doon loo xam ne jon jon la neex naqari dem macha allah waaw acca ci wàllub listixaar lañ koy daal di tëjee ah, sëñ bi mu doon loo xamante loo ci wax lu ne rek wala da nga euh, xam ne maanaam mbirum xalwa li ma ci liggéey bari na lool lool lool lool waaw mën naa ne ñu baree baree baree baree ñoo xam ne maanaam man ndax man ñu ëpp ci ñu may xalwatul wax dëgg yàlla mhm. doonuñ ñoo xam ne ñu maanaam maanaam dañuy jaxasoog doomu aadama yi Hmm. ndax ñi ci ëpp fi ñu toll nii maanaam ay liggéey yu mag la ñor. Hmm. ñi ci ëpp tamit mën nañ leen a tudd ci réew mi. Hmm. ñu ëpp nag dama leen di dugal xalwatu di leen ñaanal seeni mbir. ba seeni mbir yëpp di dox. loola nag ku ko bëgg. moom dafa am fooy jaar. dafa am fooy jaar ndax xalwatu doonul lu yomb. mbirum xalwatu moom képp ku la ko yombal la doonul lu yomb. maanaam ki man ki may xalwatul dëgg dëgg dëgg dëgg bu amul 4 millions jurul mu ñëw. man sama xalwatu ki may xalwatul di ko duggal xalwatu waaw bu amul 4 millions jurul muy ma ne maanaam doonoo dara laa la wax waaw suur boobu ngay commencé commencé doon dara ngay commencé yëg sa bopp barke Seexul Xadim man duma ku ma xalwatul ak a doon laa wax bu ma la xasee ba liggéey la xalwatu mais jurul ngay ñëw waaw 4 millions ku amul 4 millions jurul ngay ñëw sama xalwatu Mhm. loolu moom yow war nga kaa mën a xam mhm. ndax li may wax dafa doon lu wér dëgg la te ku ma gis xam ne man fi man mii wax ak yow mii ma mhm. euh, dëgg yàlla maa ngi sant suñu borom dëgg la du daraa tax nag may wax maa maa ngi sant suñu borom bu baax waaye képp ku yàlla dogal ba nga ñëw ci man ci wàllum xalwatu mhm. maa ngi wàcc màggu yàlla insha allah rabbi bu ma defee sàrt yi may def ba pare mhm. ci kàttanu yàlla moom kenn du la teree tàkk moom ci àdduna kenn du la teree tàkk waaw acca sëriñ bi waxtu wi daan nay jeex xanaa kay nga daal di tàggatoo waaye nga may ci leen rek ci kaaraange euh, ñu daal di wàcc ak moom émission bi waaw kaaraange nag da jurul na may wax ne ma manas naa di ko liggéeyal nangam ak nangam waaye dama ci dama ciy maye secret ah, mooy far kaaraange nag secret bi ma ciy maye muy lan képp kum neex ko sa sa sa njaboot boo defal sa njaboot incha allah rabbi mhm. danañ mhm. may nag bu fekkee ne mën nga ko yow mi nga xam ne yaa may na ko defal sa njaboot mhm. ndax dafay aar képp ku mën a doon daf lay aar te jamono ji aajo woon nit ku ne am kaaraange nit ku ne mucc cat lii may maye nag bopp tan ngay wut bopp tan bopp tan ngay wut moom su wutee bopp tan nag nga daal di bind tabat yadaa waaye tabat bi da koy juutal soo ko juutalee pare nga daal koy dugal nag ci biir bopp tan bi su ko dugalee ci biir bopp tan bi bu ko defee nga ëwee ko denu derub jaan Mm-hmm. nga ooyee ko takk sa ndigg mm-hmm. kooku insha allah rabbi nit du man ci yow dara wax wax bàyyi rek mm-hmm. waaw insha allahu rabbi macha allah aca kontaan nañu lan ngay daal di tàggatoo yi sëñ bi waaw li may tàggatoo mooy maa ngi sant yàlla di sant ñëpp rek di ñaan suñu borom may ñu jàmm ak tawféex ci réew mi ba lépp loo xam ne ñun naan nañ ko wala ñu bëgg ko rek suñu borom defal ñu ko di ñaanal bu baaxa baaxa baaxa baax parce que président bi nga xam modi moo di Bassirou Diomaye mhm. borom guddal fanam ta yaatal ko mhm. ta yagal ko fi mhm. te gëna yok yokk xewalam te ubbil ko mbolé buntu wërsa gi jërë ngeen jëf alaykum wa rahmatullah jërëjëf jëmm jëm ngi nonu di sëriñ Seexuna ndjay borom setuk loxo gi mu doon jàmbaar ci set lool dem nañ ba àdduna yëpp dañ ko xamé sax ci set ñu bari def nañ ni set rek moy liggéeyam waye amna yenen ñu laq ci ginaawum waye set day li gëna a ci mom day loo xamante ni peut-être sénégalais yëpp moom lañ ko daal di xamee di leen jox nag dig daje beneen incha ak yeneen émission ak yeneen i waxtaan ak Serigne Cheikhouna Ndiaye mi jërë ngeen jëf merci beaucoup